am ka naka salon bii nga xam ne Ndeye Khady Ndiaye moo ko mooma maanaam am na massage boo xam ne massage nuuru la tudd massage nuuru nag aji saar nee na maanaam mooy client bi bu ñëwee nag ba tëdd daal maanaam si meeku ba set wecci boo koy massé da nga koy macaaleel ba mu nag daal di daanoo ba mu daal di éjaculer maanaam juge bi dafa mujjee jaaxle ci kaddu yii nga xam ne aji saar daan ko yëkkati maître El Hadji mi nga xam ne mooy layal aji saar moom tim daal la Diouf yooyu daal di koy naqari loola ba mu ne maître El Hadji Diouf yow violeur international nga maître El Hadji Diouf moom tim daal di koy daggal saaga woo xamante ni maara day tali kenn ñimiwu ko wax Ndeye Khady Ndiaye daal di wax ne maanaam bu procès amee rek da ngeen way mbay ndax yor nañ ay vidéo yoo xam ne maara day tali te nag kii nga xam ne mooy Adji Sarr maanaam bett naa ko ak benn député boo xam ne APR la nekk ba tey ci biir journal bi maître El Hadji Diouf daal di wax Ndeye Khady Ndiaye yow amoo benn xarañte benn xam-xam ci lu jëm ci wàllu maase Ndeye Khady Ndiaye na ko maître El Hadji xaju fa boo weddee ne mën naa maase maanaam simmeekul ci kanam doyen de justice ma daal di lay maase ba sa biir bi wàññee ko nday xadi njaay daal lay setal lool ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yéene kaay gi xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas daal maanaam confrontation bi moom doyoon na waar génn xeetu doy waar goo xam ne musiba ma bokkumba la yéene kaay gi di Sud Quotidien askan wi nga xam ne ñooy yeewoo lu ko na si ñoom ñoo xam ne démb wàcc nañ si mbedd mi ndax li nga xam ne moom la ñuy sàkko mooy asu soxna mi nga xam ne moo ñàkk bakkanam fan yii ñu génn ci hôpital régional maanaam ñu daal leen ci andil ay leeral leeral yu mat sëkk yoon nag daal di def liggéeyam jigéen ñi nga xam ne ñoo dëkku Louga ñoom nag nee nañu dañoo sonn ba maara détaal yi te nag mbir mi ci boppam dafa war a doy ñoom jigéen ñi nee nañu bu ñu demee ba wan lor nag maanaam ay jafe-jafe yu métte métte métte la ñu dund comportement yi bon yi nga xam ne ñenn ci agent de santé yor nañu ko loolee la jigéen ñi xamul lan mooy ndayam jigéen ñi dëkk Louga démb seen marché bi nee nañu nag nga xam ne ay agent de santé maanaam xaalis rek moo leen intéressé yéen kaay gi di Vox yi nga xam wàllu wér yaram gi ñoom tim dañoo mer ba maara détaali nee nañu sax danañu dem ci li nga xam ne mooy ab grève totale ndax liggéeykat yi nekk ci wàllu wér-gi-yaram gi ñoom nag nee nañu duñu nangu kenn di leen ñàkkal fayda ndax ñoom dañoo gis na jamono ji kenn wégule na kenn respecté wule na moo tax nag ñoom nee nañu alxamis ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril la danañu daal di marsa yéene kaay gi di la sa nee na wàllu wér yaram gi jamono ji bu ñu waxantee dëgg moo nekk si ay jafe ndax ñi nga xam ne ñooy pharmacien privé yi ñoom nag nee nañu ajjuma ji nga xam ne moom la ñu dëgmale danañu dem ab grève ndax dañoo bëgg gouvernement bu Sénégal daa di rétablir nag ki nga xam ne mooy ay sëmbooj ay droit am nag nee nañu tamit dañoo bëgg directeur bu departement de la pharmacie ak médicament daa di tekki ndomal tànkam yéen a kaay gi de la quotidien xëy duñu xibaar naa ñu lu jëm ci wàllum ndox mi jamono ji askan wi ñoo ngi dee la ko waral nag bokk na ci maanaam facture yoo xam ne dafa cher ba maara détaillé loole nag tax na ñi nga xam ne ñooy waa SONES ñoom nag nee nañu mbir mi dal danañu ci andi nag ak maanaam danañu ko saytu danañu ko audité danañu audité li nga xam ne mooy système de facturation bi di réew mi quotidien xëy séq waxtaan ak Zumba mi nga xam ne artiste poète la nekk nag doomu célèbre écrivain bi di Ami Sow Mbaye daat nay wax ci biir journal bi di réew mi lu jëm ci wàllum crise des valeurs ci Sénégal ak nan la ñuy def ba di koy jubbante wax na tamit ci njàng mi ak njàngale meek gàllankoor yi nga xam ne moo ci amee yéene kaay gi di Walf Fadjri wax ci assemblée nationale ci projet de loi bi nga xam ne jëm na nag ci modifier code électoral bi ñu doon amal ni ki démb ci assemblée nationale ngir nag yokk li nga xam ne mooy limu député yi journal bi nee na limu député député yi nga xam ne bëggoon nañu koo jëlee téeméer ak juróom benn fukk ak juróom yóbbu ko ba téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar daan nañu say génn ndax nag nee nañu juróom-ñaari député yi dañu koy jël ci list nationale bi yéen a kaay gii di l'info ñu xëy fekk fa Aïda Mbodj moom nag nee na député yi maanaam comportement bii nga xam ne moom la ñu yore muy comportement boo xam ne comportement bu ñaaw la Aïda Mbodj nee na loole nag moo tax député yi jamono ji tekkeetuñu dara ci butu askanu Sénégal yéen kaay gi di las ak Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu duwaan teg na loxo ay faux médicament yoo